internet yi seetaan Actubuzz TV la site d' actualité du Sénégal gannaaw euh, xew-xew bi nga xamante ne am na fi Sénégal ñu gis ko fële ca Padoa benn waaye doon def euh, vidéo di filmer benn maire mu jàkkaarloog moom mu togg ci euh, benn étage mën naa ne deuxième étage la toog loolu yéem ñëpp ku nekk di ci wax rumeur yi bëri lool tey nag ñu nekk fii ci yoo fas yéene indi ay leeral ci li ci jëm waa ji doon ab mbokk ci ki nga xamante ne moo di maire boobu ñu koy nuyu bu baax a baax ziar ko bu baax baax a baax indi leen ay leeral léegi léegi lay doon sëñ bi ñu ngi lay ziar. ñu ngi leen di fay ñu ngi leen di wax waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. maa yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah. tur la nan la. Ahmed Tidiane Deme. loo doon ci moom. doom la ci moom. d' léegi dañu bëggoon indi ay leeral ndax seetaan nga vidéo bu baax a baax. seetaan nañ vidéo yu bari ba ko ba nga ko ba nga ko gisee lan nan nan nga yëg ban yëg-yëg nga am. lu lu njëkk lu bu ma ko gisee mais mbég li ne dama daf ma daf ma bett dañ ko séentu foofu sax te yëguñoon it tamit dikkam foofu lan moo indi loolu ndax moom ànd nag xelam dafa am feebar xel moo ko dal feebaru xel léegi moom fan la doon fajoo ak kan la nekkaloon moom mu ngi nekkatoon ak doomam bu mu jur mu ngi loon fajoo ci diwaani Saalum am lu sax leen wax mu ne leen mu ngi dëkk dëkk buñ naan Njaay Kunda ne Njaay Kunda la dëkk dëgg la Njaay Kunda la dëkk yaayam mu ngi foofu baayam tamit mu ngi foofu Njaay Kunda nag bu nga xam Njaay Kunda Njaay Kunda mu ngi nekk ginnaaw Ndaraame Escale Ndaraame Escale su la neexee mën ngaa ñëw Wàkka Nguuna dem Kaolack su la neexee mën ngaa ñëw Kër ma Madiabel dem Kaolack soo jógee Kaolack ñëpp xam nañ ni Kaolack moom ci Sénégal la bokk kana kon nag Njaaykounda fan la bokk ba tey Njaaykounda soo bëggee leer lu dëgg-dëgg xam fan la Njaaykounda nekkee Njaaykounda mu ngi nekk ci commune Kër Saalum Diané Saalum Diané mu ngi nekk ci euh, département Touba Kouta waaw Touba Kouta Touba Kouta euh, Foundiougne Foundiougne Fatick ba tey kanaa ci Sénégal la wala nekku Sénégal sénégalais la ndeyam sénégalais la baayam sénégalais la muy sëy tamit ci biir Njaykunda mu nekk nit ku gore nit ku baax nit ku set te ay wali yi tamit jur ko luy ay wali jur ko sëti Cerno Ali yu dem la Cerno Ali yu ak Cheikh Oumar nijaayam la Thierno Aliou su fekkee ba tey bëgg nañ xam kan mooy Thierno Aliou na Aliou mooy Serigne Seydil Hadji Ali bu Serigne Thierno Mouhamed Saïd Medina Gounass Njaykunda góog taarix la ci biir diine l'islam fii si Sénégal Njaykunda boobu tamit taarix la fii si biir Sénégal c'est ñu ngi wax Serigne Touba jaar na fa te bërëb bu jaaroon foofu sax soo ñëwee am na màndarga mën nañ la ko woon c'est teen lañ fa gas buy ñëpp di barkeeloo. Thierno Aliou moom nag mooy mooy maamam kon awaka femme bi awaka lañ koy wax mu ngi sant dem kon mën nañ wax awa dem pa Ousmane dem mooy woy juram borom këram ñu ngi koy wax Yunus Diop mooy naayib imaamu ratib Njaykunda borom këram mooy imaamu ratib naayib imaamu ratib Njaykunda suñu fekkee xamuñ lan mooy naayib moo topp ci imaamu ratib Njaykunda avocat moom bu ko lii dalee léegi yàggut lu bëri nag nit ñi ñu ngi ko ciy wax feebari xel moo ko dal te lii bu ko dalee léegi yàggut doomam moo feebaroon fe doomam bu jigéen te jànq la sax am na boroom kër doomam boobu boom doomam boobu jànq la te am na boroom kër dafa feebaroon nopp yi ñoo xawoon tëx mu koy jàppale ci faj boobu muy dem ci sëriñ yi di wut ay ñaan pour lu jëm ci doom ji si la ko ci feebar bii dab yëf yi da koo dab te bum ko waa noppi yi moom su fekkee wérut normal ñoom ñaar sax ñoo àndoon te lii bu mu ko daleeg léegi su fekkente ni mot na ñaari weer motut ko weer ak lu topp tuuti julli tëbësi bi dara du jotut ko même euh, tamxarit bi foog naa fekkee dara jotu ko lu mu ko su gàttal daal feebar bi bu mu ko dikkaleeg léegi su tolloo weer ci la daloon dimbale doomam muy faju ci la ko li lii sax dabeewu ko ci Njaaykundaa fu mu yóbboon doom ji di faju foofu la ko dabee ñëwoo boroom këram ñu informé ko mu ñëw jël si ko te moom tamit da koo bett séentuwut woon ko nit ku diiñ nit ku baax nit kuy jaamu yàlla juddoo ci dëkk màggee ci dëkk sëy ci dëkk am ci ay njaboot ba am ci ay sët te dara mosul laa woq xamewuñ la lu ñaaw lu baax rek lañ la xamee nga xëy di dimbale say doom pour mu faju nga génn fa dem faji ji ko ñu woowee la fa téléphone sa jabar jooj de feebar na feebari xel dala jaaxal sëriñ bi ndax toog ngeen jërëjëf borom këram jëlee naa ko kër ma jibel di ko andi Njaay Kunda mu ne ma bu dem na wàkka wàkka dëkk bu ñu naan wàkka nguuna dem na fa pour gis ak waa sëriñ bi dem na fa ñaari yoon fekkut ko fa ba jot naa wax ak yaayi sëriñ bi waxtaan ak moom ci loolu ci lu waral lool mooy première bu mu génnee ñoom dañoo demoon bu ko borom këram jëli jee mu ñif si dafa dafa génnoon moom ak doom ji yëpp ñu dem gisuñu leen ñu leen di wër ba gis leen ñu delloo si leen ñu ñëwaat si kër gi ci dëkk bi buñ ñëwaatee ci dëkk bi buñ fa naan si bés set rek dañoo xëyat xëyat dem demaat bu ñuy génn ci dëkk bi am na ku leen dajee delloo leen kooku yaakaar ni nag dëpp nañ mu dem wax ko borom këram Yunus Jóob lañ koy wax bu mu demee wax ko borom këram borom këram dem dabi ji leen waaye gisul ko mu olière gam bi bu loon dem Njaaykundaa gam bi di dem baara mu taxawloo ko xool ko fekkut ko ci mu dellu toppaat olière yi fekkut ci mu topp olière ba ba wàkk gisul leen mu jaar ci kër sëriñ boobu bàttale mu génn dem kër ma jébel jour boobu man maa ko jëlee kër ma jébbal delloo ko moom bàyyi nus muy muy borom këram diir boobu nag la réer riir bu yàgg ba ginnaaw si ki ñu déggaat ni mu ngi côté bi waaye bu muy ñëwaat njayku ndaa fan yii ne fekkut ma fa man waaye fan yii nii keroog aljuma Njaykunda la ko fekk moom soxna si keroog aljuma Njaykunda la ko fekk mu jóge fa di toppaat faju mu ñëwaat wàkka moom ak rakkam rakkam eesa la de moom ak eesa ñoo nekk ndoor wàkk kooku nag yëgut ba nu mu leen rëccee ñun lu ko àndee ndakaaru sax ñun dañoo jaaxal lu ko yéegloo ci kaw foofu ñun si suñ bopp dañoo jaaxal nit ko set la wax naa la ko rab nag moo ko téye te rab mën naa def loo nit lu ne xanaa ko xamul rab ok kon nag rab mën naa def loo nit lu ne rab ñun de luñ jàpp di nekk ay mbokkam luñ jàpp mooy rab moo ko def loolu tey si tey xëy nañ ñun ñu dem fa gisi ju ko buñ yeggee lum ñu wax daf ñu ne yéen kan moo leen wax fii laa nekk moom ci jëmmu boppam mu ne leen kan moo leen wax mu ne ñëw naa ndakaaru maa leen di woo waaye ma fan ngeen nekk ci Dakar moom ci moom moom ci boppam wala nekk loolu la wax Ablaay la ñëw naa ndakaaru ma leen di woo waaye xaw ma fan ngeen nekk day dem di ñëw kon xam nga léegi kon xel bi day dem di ñëw mu ne leen kan moo leen wax saa fii laa nekk Ablaye mu ne ko dañ ko gis ci internet bi rek ñu ñu ngi la photo bu nga toogee ci kaw taax bi si lañ ko gis ñu sàppur moo la wàccee si andi fii moo tax ñu ñëw fii nii Ablaye jot na ko ko laaj Ablaye mii jot na ko ko laaj Ablaye mii tamit doom la kon xam nga ne Ablaye mii doomam la moo ko ko laaj. mu ne ko ci kaw taax bi ci laa jaar ba yéeg déedéet jotuñ ko ko woon lu tax woonuñ ko ko c'est xam nañ ni mbiri rab la la yore te jamono jum nekk noonu si suba teel ki lañ ko gis doctor yaa ngi koy faj doo su fekkee boroom xel nga doo ko wan ay vidéo yu mel noonu lu ngay bàyyi kay ba mu dal su fekkee dal na nga waxtaan ak moom woon ko ko loolu kay sin xel saa demu ci loolu lan xam nga lan la sin xel dem mooy na wér ak jàmm waaw xam nga la sin xel dem mooy yàlla delloo ko ci sago boppam waaw. loolu la ñëpp di ñaan loolu la ñuy ñaan loolu lañ bëgg ñëpp dimbali ñu ñaanal ko ci lool waaye won ko jamono ji ay vidéo ak foo jaar ak yooyu loolu taluñ ko. namm nañu itam bu ànd ak xelam incha allah te ñëpp dañuy ñaan mu wér ànd ak wér bu ko defee ñun incha allah ci ñi nga xamante ne ñu ngi nekk di wax te xamuñu li ñuy wax lan la. ñu toog ak moom gën a yaatal ak moom comme ça nit ñi am lu leer. loolu du ma la ci mën a tontu lu yàgg xam nga lu tax ñun ay ndigal lañ koy defee lu ñuy def nii ndigal la seen kilifa ñoo ñu ci jox ndigal. mooy yoon sa mooy mooy borom këram.